moo xam lenn ci góor ñi waaye li ëpp ci jigéen ñi dana leen faral di gaar euh, tey nag benn la ci xeeti ndundat yi nga xam ne lu ci ëpp ci kaw bopp doomu aadama ci lay dox te li ëpp li muy dundee kaw bopp doomu aadama yi ci xeeti la fa yàlla di def moo xam ay karaasa xeeti yi mel noonu lu ci ëpp ci lañuy dundee moo tax li koy ëpp di gént jigéen dana koy faral di gaar ci dund naturellement ni jigéen lañ gën a xamee teeñ tamit lu ci ëpp fu muy faral di nekk fu tilim lay faral di ëpp lu muy nekk moo xam ci xeeti bopp way laa ci xeetu yëre yi nga xam ne day faral di tilim di baramu lu ci ëpp xeeti ndundat yooyu fa la ëpp lu ñu nekk muy teeñ teeñ nag nekk lu am solo ci wàllu gént am lu muy tegtale moo xam benn nga gis di teeñu wa nga gént ñu lay teeñ wa gis ay teeñ yooyu yëpp am na ay tegtal yu am solo Euh, bu fekkente ne nag nit koo xam ne danga am ñoo seqal wàllu liggéey euh, nga gént gis ay teeñ yu bari muy waddee ci sa bopp moom baaxut benn day teg tegtale échec wa ilaa ñi ngay jëflanteel ci wàllu liggéey boobu boo moyut ay war mën na ci am incha allahu rabbi euh, bu fekkente ne nag ku jigéen la koo xam ne amagut boroom kër gént gis ay teeñ ci boppam loolu it danay tegtal ay xat-xat wala jafe-jafe yoo xam ne danay faral di ko jànkonteel wa danay bari lu muy wàjj dugg ci ngor waaye dina dem ba ci biir am ci ay gàllankoor bu fekkente ne nag ku góor koo xam ne daa gént gis aw teeñ wiy naaw teeñ wiy naaw baaxut ndax benn dana tegtale nit koo xam ne dangeen seqoon teraanga boo mayit mën ngaa yëg ne seen diggante teraanga ngeen seqoon mën naa jeex mooy kóllëre gi dox sa digganteeg kooku mën na laa jaaree ci gént nga yëg ne gis nga aw teeñ wi naaw ala kulli xaal yi eh, ba tey gént ay teeñ di ko rey baaxul nag ci jigéen ju nekk ci biirub néegub sëy ndax dana tegtale ne jigéen la joo xam ne benn pour mu jël ëmb du gaaw wala su jëlee ëmb ba am yaakaar mën nay tegtali mën na am déception mooy gént rey ay teeñ ci sa bopp ci jigéen moo tax ala kulli xaalin baaxut eh, ba tey it koo xam ne dangay gént am ku lay dindil ay teen ci sa bopp loolu eh, baax na ci jigéen benn danay tegtale dund gu normal dund koo xam ne dana stable beneen bi dina toppaat dana waral mën naa am am boo xam ne mën na bàyyi ko ci miraas alal joo xam ne mën na ko mu bàyyi ko ci miraas ala kulli xaalin ba koo xam ne Eh, dangaa gént gis aw teeñ mu lay màtt ci sa bopp lool ay teeñ loolu dina tegtale ak réeroo wala ak gu metti goo xam ne dana la waral nit ki dana ko am ci biir famille mooy dana am ci ñenn ci ay mbokkam wàllu réeroo dana leen sonal lool ala kulli xaalin eh, ba tey it koo xam dangaa gént ay teeñ di génne sa biir nekk baax na moo xam jigéen wala góor moo xam ku nekk ci néegu sëy wala ku ci nekkut loolu it dana tegtale koo xam ne bu doon ay xat-xat wala ay jafe-jafe nga nekk danay wane ne balaa yàgg mën ngaa génn ci jafe-jafe yu ala kulli xaali bu fekkente ne nag euh, dangaa gént ku tawat ay teen yu bari sam loolu wër ko loolu it baaxut danay tegtale ni bu dee aji tawat la tawat ji mën na cee yàgg lool way la pour mu jugaat dox ay yitteem dana jafe ala kulli xaalin moo tax côté boobu ni nekkul lu xam ne gën ala kulli xaalin beneen bi ci toppaat mooy ala kulli xaalin euh, koo xam ne dangay gént gis aw teeñ ci sa yaram moo xam jigéen wala góor nga gént gis aw teeñ loolu day tegtal ak réeroo gu metti goo xam ne mën naa am si lu aju sa wàllu biir njaboot moo xam si sa wàllu doom yi wala ñenn ñoo xam ne yilif nga leen ak réeroo mën naa am seen diggante boo xam ne mën naa jéggi day ala kulli xaali ba tey it eh, ñoo xam ne dañoo aajowoon numéro yi incha allah mën nañ koo jël numéro yi mooy 78 443 75 27 bu dee ñi nga xam ne dañoo bëgg ku leen defal seet wala li sa xaar wala firigéen incha allah ni ñu koy baaxoo di waxee nag. bu fekkente lu aju ci wàllu firi gént yi dafa am lu ci war moo xam ku woote wala nga envoyé message vocal eh, am na loo xam ne moom lañ ci sarto nit ki pour balaa ñu ko firi gént ñu xam ne dafa am lu mu ci war a joxe loolu it na ko mbokk yi bàyyi xel bu baax a baax incha allahu rabbi eh, beneen bi ci toppaat incha allahu rabbi am na ci ay xeeti garab yu baax ci wàllu émérite wala ndox siti waaye laa ñi nga xam ne karaw bu ruus daf leen sonal di dagg am nañ fi ay produits yu ñuy liggéey lu aju ci wàllu karaw incha allahu rabbi yooyu baax na ci lool wala ñi nga xam ne wàllu cat da leen sonal wala far rab wala jigéen joo xam ne day nekk ci ngoro lu yàgg balaa gis ñi wax waxi takk rek ñu daal di taqali ko loolu yëpp am na ci ay càngat yoo xam ne am na solo kon numéro yi mooy 78 443 75 27 ñi nga xam dañoo bëgg ku leen defal firi gént incha allahu rabbi am na lu ci war wala ñi na xam dañoo bëgg ku leen defal li saxaar ala kulli xaal kon numéro yi mooy 78 ba tey bokk na ci gént teeñ boo xam ne baaxut mooy gént ay teeñ di la sa bopp loolu dana waral fitna ak jafe-jafe yoo xam ne nit ki mën na koy jànkonteel ci ay mbiri boppam eh, ba tey bokk na ci mbiri alaakulli xaalin gént di rey ay teeñ waxoon nañ ko dina tegtalee ak ñàkk goo xam ne mën na ko am ci wàllu liggéeyam ba tey it liy tegtale yaakaar mooy gént gis ay teeñ ci sa wàllu yére bu mbari nag moom bu dee ay benn benn. nga gént gis leen ci sa kaw yére loolu dina teg tegtal yokkute bu doon ci wàllu liggéey nga nekk mën na teg tegtal liggéey boo xam dana am yokkute bu doon kiy sàkku daal tamit li ngay sàkku yàlla mën na koo sottal ala kulli xaal eh, ba tey eh, koo xam ne dangay listixaar nag di ñaan yàlla pour ne damay ànd ay nit ba baax na wala baaxul nga gént gis aw teeñ wu mag wu ñuul lool eh, des lay xamal ni ala kulli xaal yi li ngay waaj a dugg noonu Eh, mën na amal la ay jafe-jafe benn mën nga ci dem ba ci biir ay wor mën na ci am wala ay gàllankoor yoo xam ne mën na ci am te ba sa kaw lay këpp man daal rakkul xaal nekkul loo xam ne gën na tey jigéen joo xam ne day ñaan yàlla lu aju ci wàllu njaboot mu gént gis ay teen ci boppam loolu it wala ci yaramam loolu it dina tegtal lim doon ñaan yàlla mën naa sotti mooy lim doon ñaan yàlla ci wàllu njaboot yàlla mën ko ko defal te mën naa nekk loo xam ne lu gën la ci bon kay mooy gént ay teen ba tey gént di peñew ay tan ay ten di romb di wad ci sa walu bop tamit baaxut loolu dina tegtale jafe-jafe ci walu liggéey bu do nekk ko xam da nga doon liggéey liggéey bu dox nga gént lu melni bu taxawul deug deug lam amone kus neew mën na koo ñàkkaat gént di wul say ten di wadd baaxut mo xam ci goor wala ci jigen ba tey mm, bok na ci bu dee jigéen dafa am jafe-jafe ci walu sey nak di lu wala mu ci xol ba xam lan moy am jafe-jafe mu gént gis ay teen yu bari sam ko di ko matt loolu des koy xamal ne jafe-jafe boobu ci wàllu sëyam am na ay nit ñuy dox pour gàllankoor ko pour yàq diggante moom ak borom këram mooy am na ñoo xam ñu ngi dox wala di wax pour fexe diggante moom ak borom këram sëy bi tas ala kulli xaalin côté boobu loolay tegtal incha allahu rabbi beneen bi ci toppaat ala kulli xaalin liy tegtale yaakaar mooy gént ay teeñ yoo xam ne ñu ngi génn fi ñu nekk di dem moo xam si sa biir néeg wala si sa biir kër day tegtale xat-xat ak ay coono yi jeex ku tawat ay teeñ di ko matt baaxut day tegtale tawat ji mën naa gën a metti wala fitnawu lool ci wàllu tawat ji balaa mu cee génn du yomb ba tey it eh, gént ñi lay dindil ay teeñ baax na baax na lool danay tegtale alal yuy yokk wala yokkute ci wàllu am-am ba tey danay tegtale dund goo xam dana stable ala kulli xaalin eh, ba tey eh, jigéen joo xam ne dugagut ci néegu say gént ay teeñ mel ni lu jëm ci ci këram loolu it dana tegtale ne li muy gént balaa yàgg mën na dugg ci sëy boo xam ne mën na yàlla mën na cee def barke ak njaboot ak yokkute boo xam ne mën na ko am incha allah rabbi kon ala kulli xaalin bi ay takk-takk wala ay tegtal yu am solo yoo xam ni day gaar ci ñenn ñoo xam dañuy faral di gént ay teeñ di leen matt teeñ di la matt moom ci gént baaxut ndax dana tegtale ni bu dee ci barab liggéeykaay dana wane am nga fa ay noon bu dee ci wàllu famille tamit dana wane ni famille bi am na ñoo xam ne yow ak ñoom seenu déggoo du yomb wala fitna goo xam di nga ko am ci sa wàllu njaboot mooy gént ay teeñ ñu bari di la màtt te day war a tamit pexe yoo xam ne ay nit a nga koy waaj pour la ko ji ma gàllankoor bu dee ko am nag day say gént gis jigéen ju am ay teeñ ci boppam baax na jigéen la ju baax jigéen la joo xam ne am na njaboot lool. bu dee nag ku nekk ci jafe-jafe ci wàllu liggéeyam muy ñaan yàlla ba xam dana ci génn wala du ci génn mu gént gis ay teñ ci génne ci barab di dem lool it dana yàlla mën na koo xamal ni balaa yàgg jafe-jafe bii mu nekk mën na cee jugee dellu ci beneen jafe-jafe mën na cee génn balaa yàgg nekk ci jàmm incha allahu rabbi ba tey lii tegtale yokkute mooy gént gis ay teeñ yu dee loolu day tegtale xat-xat yuy jeex ak ay jafe-jafe yoo xam ne dana ko teggi ko mooy nit ki kon alaakulli xaalim ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Euh, di ñaan lii ay takk-takk yoo xam ne lenn ci nit ñi mën nañ ciy sukkandiku pour mën a xam seen wàllu tegtal ci wàllu gént ala kulli xaalin kon yàlla yàlla defal ñu tawféex defal ko mboolem ñi nga xam ne fu mu mënti kaa toll dañuy partagé wala ñi nga xam dañuy abonné wu ci chaîne bi ak ñi nga xam ne dañuy jëm di bàyyi xel liggéey bi kon ñu bàyyi xel ne liggéey bi wax ju ñuy wax ñëpp yéen lañ koy waxal ndax ñëpp mënuñoo maase di wax waaye day am ñenn ñoo xam dañuy gëstu di ñëw di wax. pour ñenn ñu mën cee jariñoo kon ala kulli xaalin yéen it ñu ngi leen sant bu baax di ñaan ñu gën a jàpp ci liggéeyam moo xam ñu nekk ci chaîne YouTube bi di abonné wa ilaa ñi nga xam ñu ngi ci compte TikTok bi fu mu toll di jam euh, di partager di tel saatu vidéo yi di ko tasaare waat yooyu yëpp ñu ngi gis seen taxawaay yi mu nekk lu am solo kon ñu ngi ñaan li nga xam ne ñu ngi koy séentu ci yiw ci loo xam ne ñu ngi koy wax ci kàddu yi yàlla yàlla defal ñu ko yiw yàlla yàlla defal ñu ko sun misaan xasanaat yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu